simile waaw grève bi ah kañ lay jeex moo jara laaj dee enquête yéen a ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay muskalaf di ay mag waaw mënuñoo fexe nag maanaam kon ba jeexal lii waaw looloo tax nag ba ko ne tuuti yi lée nee ma élèves nee nañu nañ leen tëñ yi seen ànd nag wax leen seen bopp loolay dëgg de ba tax na nag élèves yooyee ah ma ne la ni ki mu jug nañ dee daal dinañuy déclenché ay yëngal-yëngal ngir daal di sàkku nag élèves yi daal di kon jeex nga xam ne kon moom la jàngalekat ah doon wax ne gis nga ab jaam ku takk mbuumug njaam boo mënulee fipp ëllëg sax bàyyi xel xeex daal mooy tekkiwaate l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort seule la lutte libère loolay dëgg de barke rasour laay looloo tax ba ku del gi njaboote ah. xam ne ne danañu ko yënga-yëngal tey ñoom élèves yu Sénégal yi daal dinañuy sàkku na ca ñoom ñoo ñee ñu amal nag ab marche nationale pacifique la nañu génn dox ngir gërëm ndaw a te nar a nag maanaam seenu ëllëg la ñoom élèves yi nee ne ñoo maximaliste bu Thiès waaw gone ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca kéeru gu gee ni ki kon ña woon ta mbedd ma waaye ne waaye ca àjjuma ji ñu génn day élèves yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaanu Ziguinchor Casamance ak li ko wër waaw daal dinañuy police yi dee ba élèves yi sax daal dinañuy taal benn oto boo xam ne day oto nguur gi la administration lu tolloog ñaar fukki élèves ak juróom day ñu daal di leen teg loxo la ilaha illallah ma ne la ni rafetul de te ñaaw lool te ca ndaxte policiers yi day waaw ñoo daal di jël nag ay grenade daal di koy sànni ca biir lycée El Hadji Malick bu Thiès am na ci benn élève boo xam ne day grenade ba ca kanam la ko dal tabakat la ko dal la ilaha illallah eh ndaw lu miti Ousmane Mbaye la xale bari wuyoo Momar Seyni Ndiaye ci tribune yéene kaay ne yaaxati nañ ko de Serigne Mbaye Thiam daal yaaxati na ko yaaxati na nga xam ne kon amoon nañ ko day ngir daal di jeexal grève bi nga xam ni la kon a ñëpp a mer laas de mer parce que ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw ne ca diwaanu Thiès waaw daal dinañuy tàmbali nag grève ay la ministre de la justice Ismaïla Madior Fall ak procureur du Thiès waaw ñoom lañ bëgg ñu ñëw teew yéene kaa gi ne même ñi nga xam ne dañoo nekk ci wàllu wér-gu-yaram di mbirum santé day ñoom it amal nañ kon ab grève ñaari fan mu waay waaw xanaa ñëppay grève la quotidien yéene kaa ne waa santé goo kay wér-gu-yaram waaw desem ñaari fan gereew laas e xoola ñàkk kaaraange xale yi tamit xale yi kat nelawatuñ ba yandoor déedéet ñu ngi leen di sàcc di leen sacrifier di leen rey la ilaha illallah tey sécurité sécurité ba day réew mi quotidien nee na ñi nga xam ne dañuy laam-laamee ne ay jihadiste lañ day wax yéen ñu wax ca tribunal ba ëpp na ndekete dañ fee bëggoon a samp ay cellule fii ci Sénégal la ilaha illallah libération ne kaa ne laale doy waar ay liaison yu dangereuse diggante Matar Joxaane Bukhari ngay grève wér gi yaram njàng meeg njàngale mi éducation ngay yaa ngay grève nguur gi dee deuxième mandat rek moo tax porte parole élèves yi ci enquête yéene kay nee président Macky Sall bu dee deuxième moo ko teree nelaw te moom kay ne en tout cas Khalifa waaw wax na jabarenaas baax waaw maire de Dakar nee constitution bi nga xam ne ko dañu koy jël di ko caxat-caxatee waaw lees waxu la nekk ca ginnaaw Khalifa ci wal fajëri nee na gis nga wàllu parrainage bi waaw ndëgg sërëxal piège biir la moom la jël ngir mu liggéeyal ko liggéey bu salte ba te xam nga sëñ bi Bey moom lañ toftal ci Aminata Touré seen kuréel gu bees gi ñu taxawal biir APR ne ñoo gérer mobilisation ak parrainage waaye soit beaucoup plus clair waaye Mbaye Abdoul Mbaye njiital ACD ci tribune yéen ne je m'explique tey ma leeral leen ko Macky Sall ak fan lañ jëm ak réew mi lee ci caxataxatee kon wàllum càttum réew mi lee ak wàllum tappale parce que Macky Sall Sarix Bey nii di DG Port nga waa moo fi nekkoon agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD waaw xam na waa réew mi ñi ñaata lañ ñi ñaata lañ ku ci ne ab am ma ne waaw te kay yoo ca loxo nguur ga ne moo ko moom données personnelles yi nit ñëpp ña nga téléphone numéro

waat parce que ku am ndey ku am ci réew mi ngaaka belende mi waaw am nañu def lu raw fuuf li ngaaka belende def te dugaluñu leen ci kaso moo taxit seen parti baa ngay tas le quotidien yéene kaay ne Moustapha Cissé Lo day démissionné marti Italie maa la ko wax de na lettre président Macky Sall ne ko instance parti bi yëpp tekki fa sama ndem ba tànk moom président Macky Sall le soleil yéene kaay nee na lu tolloo junni ci ay tracteur oto yooyee ñuy béyee heure ngir mbéy mi méngoog jamono vox sobili ne ceeb bi doy sëkk autosuffisance en riz waaw président Macky Sall day Sénégal la bëgg a def sax xam nga sax grenier boo Afrique soow jant ceeb bi doy sëkk ci biir lekk bay tuur <laughs> alaaji nit daal bu la joxee ndékki jox la añ bu la diggee reer nga war koo gëm waaye bu la waxee mu dañ waxaat la mu dañ mënatul fexe ba nga gëm ko moo tax mën a la alaaji tëjal